الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom dolli ko xéewal ak yërmande defal ko ko moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak bépp jullit bu topp seen yoon ba keroog saa di taxaw kon nu dellu si nu ñetteelu jotaay si jotaay yi nga xam ne dañ ci ànd ak al ustaad Omar Diallo xafidahullah wa raah ci nafar téere bu am solo muy tuxfatul mushtaq arbauna xadiisan fi tazkiyati wal axlaaq ki ko taalif di ali al misri xafidahu llah wa raah kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo retard xam naa ñu bàyyi xel rek ne jotaay bi passé ñu ngi yemoon ci xadis numéro six incha allah kon tey ustaad day dugg ak ñun ak xadis numéro sept di ñaan suñu borom tabaraka wa taala yombalal ko ba mu mën a leeral lu dëppoo ak ngërmaani suñu borom tabaraka wa taala kon xam naa duñ guddal dañ koy bàyyi mu tàmbale mubasharatan wal yatafaddal mashkuran mahjuran
kon ñoo ngi jël si waat ci suñu dars arboona xadisan fi tazkiyati wal axlaaq wala naam ñu nekkoon ci xadis numéro six tey ñu war a jël xadis numéro sept muy alxadisu saabi mu ne an abi umaamata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ana zaimun bi beytin fi rabati aljanna liman taraka almira wa in kaana muxiqan wa bi beytin fi wasati aljanna liman taraka alkaziba wa in kaana maazixan ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أبو أمامة الباهلي كي صحابة إلى بوك بل بوكنا كي صحابة يمجي فاتو كي الإسلام بوكنا كي صحابة يغا خمني بوي جان إسوار صحابة جنراسيون بيغا خمني نيو غنى غود فان جنراسيون بي غنى غود فان مجي فاتو أبو أمامة نيكول ني مو مجي فاتو أمنا صح نيو نان مو مجي فاتو mais mujjeewul faatu amr ibnu tufayl li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ moo mujjee faatu ci saxaaba yi moo tax ginnaaw moom dat bi mu faatoo muy amr ibnu tufayl ku ñëwaat ginnaaw dat boobu woote woo saxaaba wala nga ne saxaaba la borom xam-xam yi dañuy naan doo saxaaba parce que kooku moo mujjee faatu ci saxaaba yi abu umaama nag ci groupe boobu la bokk ñi mujjee faatu mais nekkul ne moo mujjee faatu yàlla defoon na mu gudd fan lool bi yonent bi alayhi salaatu salaam génnee àdduna ni ngeen ko xamee saxaaba yi dañoo séddalikoo dafa am groupe bu toog Médine am groupe bu génn Médine dem toog Màkka ñooñu Abdullah ibnu Abbas si la bokk am groupe boo xam ni dañoo génn Médine génn Màkka dem toogi Iraq Kuufa am ñoo xam ne dañoo dem toogi Syrie muy Damas ah ca capitale ba Dimashq muy Damas Syrie ñeneen ñi dem Hams wala Hims Bilal ibnu Rabah ci ñooñu la bokkoon bi yonent bi génn àdduna Bilal dafa génn Médine dem toogi Syrie Abu Umaama mi ci ñooñu la bokkoon dafa génn Médine dem toogi Syrie dafa génn Médine dem toogi Syrie ba foofu la faatoo Abu Umaama al-Bahili comme ni nga ko xamee turam dëgg mooy suday ibnu ajlaan wala ibnu ajlaan mooy turam dëggantaan dafa am ci saxaaba yi ñoo xam ne seen tur moo gën a siiw seen kunya am ci saxaaba yi ñoo xam ne seen kunya muy seen moo gën a siiw seen tur abu hurayra dàkkanta la moo gën a siiw ah ibnu abbas dàkkanta la moo gën a siiw tur bi ibnu omar dàkkanta la moo gën a siiw tur bi ki nga xam ni mooy abu umaama même chose anas ibnu malik aussi tur bi moo gën a siiw dàkkantal bi Zar dàkkantal bi moo gën a siiw tur bi Jundub ibnu Junaada ah ñii seen tur moo gën a siiw ñii seen dàkkantal Abdullah ibnu Mas'ud turam moo gën a siiw dàkkantal bi tur bi moo gën a siiw kuniya bi Ammar ibnu Yaasir turam moo gën a siiw kuniyaam doon saxaaba yi noonu lañ mel boo jël Umu Salama Umu Salama dàkkantal la dàkkantal la dàkkantalam bi daa dem boo yóbbu tur bi loolu ñu bàyyi ci xel kon saxaaba yi noonu lañ bind Abu Umaama mi tàkkantal abu umaama albahili la nit ñi gën a xam ci turam abu umaamata albahili nee na qaala wax na qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam ana man zaimu zaim mooy garanti baatu zaim dafa am ay sens yu bëri dafa am sens propre am sens figuré zaim bu ñu ko waxoon nii rek ci langue arabe sans ñu dugal ko ci benn phrase sans mu nekk ci benn contexte li muy firi mooy leader zaim li muy firi mooy leader mooy chef loolu lay firi mais ci texte bi fii firiwul chef firiwul leader moo tax texte coranique yi ak hadith yi kenn du ko firee làkku arab da ngay xool contexte bi mu nekk ak sens bi ko borom xam-xam yi jox moom nga koy firee moo tax des fois nga gis koo xam ni moom jàpp na ne dégg arab wala affaire day dem di xool dictionnaire di firi dégg ngay def parce que baatu arab boo jël baat bi mën naa am ay sens yu bëri sens yooyu te texte bi contexte bi mu nekk nii ci sens yu bëri yooyu ban sens la ci am ban maanaa la ci am soo ko xamul mu yóbbu la fu sore sore boo tax mu ne man ana man zaimu nekkul waxul maay chef firiwu ko noonu su naa dégg ko ko firee noonu firiwul kilifa firiwul njiit firiwul leader ana zaim zaim fi li muy firi mooy daamin wa kaafil man maay garanti yonent bi nee na garanti naa bi baytin ci kër fii rabadil janna ci suufu àjjana xadis bi di ngeen ci comprendre lu bëri ci àjjana nu ko yàlla formé rabat mooy tool lu ñu mën a firee fii rez-de-chaussée rez-de-chaussée mooy suuf bu fekkee da nga am kër goo xam ni ay étage la bi ngay njëkk a jot ci suuf boobu duñ koy tuddee rez-de-chaussée mooy bi ngay njëkk a jot ci suuf donte ci wolof moom xamuñu ko rez-de-chaussée moo tubaab loolu mooy rabat mooy bi ngay njëkk a jot ci suuf mooy rabat li muy tekki mooy àjjana kon ay étage la àjjana kon ay étage la xadis bi loolu lay jéem a junj dèjà mooy àjjana ndekk ay étage la fi rabatil janna ci suufu àjjana yonent bi nee na man garantiral naa kër ci suufu àjjana kan la ko garantiral li man tarakal miraa ku bàyyi xuloo ak werante wa in kaana muhiqan donte moom moo am dëkk parce que des fois dafa am nit ñoo xam ni yow même soo amee dëgg mu duñ la ko nangu soo amoon dëgg mille dëgg boo ko amoon ñoom munoo fexe fexe fexe fexe bañ nangu la dëgg lu tax mooy fanatisme gi moo tax dañoo fanatique fanatisme par parloo ah ñeñ ñi xol yu tàng bëgg a yëkkatiku bëgg a tiitaru xeebaate moo tax ñoom munoo wax a wax a wax ñëpp ba dëgg gi lu mu leer leer dañ naan la waaye ñun nanguwuñ ñun wala ñun lii lañ topp wala ñun lii lañ lii lañ gëm wala ñun lii lañ yaakaar léegi koo xam ni da ngay nekk digg bëccëg digg bëccëg ngay nekk ne ko bëccëg lañ nekk mu ne la mu ne la ana jant bi walaysa yasixu fi l azhaari shay'un iza xtaaja nahaaru ila dalil bu fekkee bëccëg dañuy nekk ci bëccëg ñu ne la maa ma ne la ñu ngi ci bëccëg nga ne ma man pour ma gëm ne ñu ngi ci bëccëg foog ma gis jant bi est-ce que bëccëg yëpp jant day génn bëccëg yëpp jant day génn des fois bëccëg bi du niis ma ne la ñu ngi ci bëccëg nga ne gisoo jant boo gisul jant doo gëm ne ñu ngi ci bëccëg loolu ku ci mën dara kan moo ci mën dara waaw nit ñi dafa am ñu mel noonu dañuy werante werante ba daanu mais dañuy continuer di werante dafa am ñaar ñuy werante dañoo jékki-jékki seen benn affaire bu tëdd fële kii na ko lii béy la béyu àll mooy mooy kéwél gazelle gazelle kii na ko noonoo tan la picc la tan la mu ne ko gazelle la mu ne ko tan la mu ne ko gazelle la mu ne ko tan la ñu ñëw a ñëw ba jege affaire bi affaire bi naaw mu ne ko gazelle la même bu naawee sax gazelle am zun wala utaara léegi loolu ku ci mën dara xam façon nit ñoo xam ne ñoom noonu lañu mel duñ daan moo fexe fexe bañ daanu ñoom même buñ daanoo dinañ justifié wu dañ la indil c'est que bon après jaar fii lu kenn xamut wax ju bëri moo tax nit léeg-léeg da ngay nangu boo daanoo da ngay nangu munoo ne chaque fois yaay am dëgg c'est pas possible chaque fois yaay dëgg gi yaa ko moom yow yaa fi dàq werante ci koñ bi yaa dàq werante ci classe bi yaa dàq werante ci campus bi yaa dàq werante ci koñ bi yaa dàq werante ci cité bi yaa dàq werante ci groupe bi te chaque fois yaay am dëgg mën naa nekk des fois da ngay daanu nga nangu ne daanu nga mais toujours maa fi werante te maay am dëgg te li ngay werante lépp mbiru àdduna la te chaque fois yaa am dëgg des fois nga am dëgg mais ñi ngay waxal duñu la nangu nga bàyyi te xam li nga xam yow nga xam li nga xam xam ne man maa am dëgg mais ñii jaraluñ ma nekk fii di coow di xul tey du ma ko jaral kooku la wax ni ana zaimun bi baytin fi rabadil janna li man taraka al miraa wa in kaana muhiqan garantiral naa kër àjjana ku bàyyi werante bàyyi xuloo bàyyi ko te yàlla rek tax nag bàyyiwul parce que day xam ne tey bu werantee affaire du baax de wala tey bu werantee mën nañ ko fay dóor parce que gars yi dañ koo eenal ñëw deg seeni yet toog di ko xaar pour mu werante non dafa bàyyi ngir yàlla tax bàyyiwul ngir ragal gars yi wala bàyyiwul ngir amul argument wala bàyyiwul ngir xam ne tey moom mënta baax le bu werante bi su jógee leneen mën naa xew déedéet mais dafa bàyyi ngir yàlla bu ko bàyyi te yàlla tax kooku ibaada lay doon ci moom su boobaa moo tax gis nga àjjana kenn moo ko sañ a garantiral nit ñi muy yàlla wala yonentam bi te yonent bi yàllaa ko koy wax gis nga fii dafa garanti de kan la garantiral àjjana waxul ne garantiral naa àjjana sama doom sama soxna ku bokk ci man arab yi wala ci ban ci ci banu haasim wala ci waa Quraysh ah wala rek koo xam ne da ngaa nekk rek julit yam fa déedéet wala mu tudd ay tur diw ak diw ak diw déedéet ay acte yoo xam ne acte yi ngay posé jaamu yàlla moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne garantiral na la kan moo ko wax loolu yàlla subhaanahu wa taala moom même buy garantiral nit àjjana yàlla moo ko ko wax toogul rek ba nii rek ah jékki-jékki di ko wax fii nag nit dalay garantiral àjjana ci ci ban anam lekk ba suur naan kefem gu tàng yaram bi tàng mu yeewu garantiral àjjana alayhi salaatu salaam moom bu lay garantiral àjjana day fekk yàllaa ko jox autorisation keneen kuy garantiral nit ñi àjjana autorisation bi foo ko jëlee kan moo la jox autorisation yow sa àjjana wóorut ngay garantiral àjjana yonent bi àjjanaam wóor na wala wóorut moom àjjanaam wóor na mu garantiral nit ñi àjjana parce que yàllaa ko garantiroo yow sa àjjana wóorut ngay garantiral nit ñi àjjana da ngaa garanti sa bos ba pare est-ce que doo garanti sa bos ba pare garantiral sa bos ba pare kon ana saimun dinaa garanti bi baytin ci kër fil janna fi rabadil janna ci suufu àjjana ci kan li man tarakal mira koo xam ne bàyyi na werante wa in kaana muhiqan doonte dafa nekk koo xam ni ah moom moo am dëgg léegi li nga ciy déggee xadis bi mooy werante bu tegewul ci dëgg werante bu yàlla taxut werante boo xam ni dëgg du ci jóge dañ koy bàyyi loolu yàlla di wax ci suratu Kahf fi wala tumaari fihim illa miraan zahiran miraan zahiran wala ma ut tafsir diñ ko firee mooy werante boo xam ne dëgg dañ ci feeñ zahir dëgg dina ci feeñ sa yazharu fihi alxaq illa miraan zahiran miraan zahir maye nañ mooy werante boo xam ne leer na ne waa ji su ma weranteeg moom ah dëgg dina feeñ parce que am ñoo xam dañoo bëgg werante seen dund yëpp ñoom ci werante ci lañ ko teg te léeg-léeg werante gi yëpp du xam-xam bu bari de mais jaay làmmiñ bu neex la léeg-léeg werante bi yëpp jaay affaire intelligence la muus muus lu te xel nag lu mu teg rek xel mën na kaa dindi xel lu mu teg xel mën na kaa dindi des fois nit ki day commencé lire ay livre affaire yi neex ci moom mu jàpp ne am na xam-xam des fois nit ki dem songu livre philosophie ba commencé ko lire nga xam ne wax affaire bi ci wax lay tàmbale wax mooy nekk centre bi wax lay jeexee lépp wax la. wax yi yëpp ci wax lay tourné ci ak ay mots ak ay calcul ak ak jeu de mots la mais résultat final boo xam ne yow boo paree di nga ko jàpp amu ci wax pour wax la moo tax léeg-léeg werante bu bëri nit ki da koy moytu rawatina werante bi. mais du werante boo xam ne dëgg ak njub ak mbaax da ci jógee weranteel pour la la dinaa la massacrer dama koy massacrer gis nga waa ji tey massacrer naa ko gis nga waa ji tey dama ko écraser non yooyu li borom xam tuddee xusuusu nafs mooy da nga ci yëg sa bakkan sa bakkan nga ci yëg yow yàlla taxatul daa yaay kontaan yaay yaay rëy yaay gonflé wu ànd ak orgueil yëkkatiku ci kaw nit ki wane ne man aay naa nekk naa dara mën naa dara xam naa dara façon boobu baaxul werante bépp boo xam ne pour yëkkati ay ay ay muscle la ak ay biceps baaxul werante du pour loolu ci diine déedéet werante ci diine mooy fexe ba ibtaalul baatil wa ihqaaqul xaq mooy neenal neen ak dëggal dëgg neen bi ñu neenal ko annulé ko dëgg bi ñu yëkkati ko ba mu feeñ bu fekkee dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo am ay xalaat ak ay idéologie ak ay doctrine yoo xam ne seen jubluwaay mooy nit ñi liñ jàng ci diine mu leer seen bopp dañ koo bëgg a lëndëmal dañ koo bëgg a yàq dañ la bëgg a dutiloo nit ñi sikki sàkkaloo nit ñi comme li philosophie di wax ku dul sikki sàkk existe woo deel sikki sàkk dut le fait que ngay douter cela veut dire que tu existes donc je doute j'existe boo dutewul existe woo duteel léegi ñu lay duteloo d'accord dute baax na mais na nga dute loo war a dute soo dutee ci loo warta dute kooku ndof la kooku folie la dof la nekkatul intelligence booy dute da ngay dute ci loo xam ni c'est raisonnable nga dute ci mais di dute ci loo xam ni c'est pas raisonnable nga ciy dute kooku c'est pas une intelligence mais c'est de la folie ak ndof la ak ndof la parce que lu leer naañ nga ciy sikki sàkk lu leer naañ nga ciy sikki sàkk loolu waa ji dafa ñëw jógee xaw ma Belgique xaw ma fan am ay idéologie yu day waar gaa yi indil ma ko ñu toog di wax mu ne est-ce que réellement yaakaar naa nee na mu ngi bokk ci benn groupe bu ñuy wax Frilis xaw ma Frilis ne est-ce que réellement l'islam que vous portez que vous que vous prédiquez que vous divulguez est-ce que réellement prouve-moi l'islam existe xam nga loolu mooy mooy mooy ku dof quoi fekk lu leer nañ nga ne nañ la prouver ne am na mooy dafa mel ni yow nga taxaw ne man man est-ce que am naa léegi yéen prouver leen prouver leen luy wañe ne man am naa man yow nga toog di wax ne man war leen luy wañe ne man am naa mais xam nga xel mu rëy kooku boo fa nekkee naan ko yàlla nee na yonent bi nee na déjà moom mu ngi dute ci l'islam xam nga du ko faj yaakaar naa mercredi lañ nekkoon ma ne ko tey ban jour lañ nekk mu ne mercredi ma ne ko prouve-moi aujourd'hui bi nous sommes le mercredi ensuite on va avancer parce que nit ki bu jëlee mën a méthodologie méthodologie boo xam ne méthodologie bu kon la des fois il faut nga kon tuuti fekk ko ci pour nga wàcc ba tolloog niveau mel ni moom tuuti pour mu mu xam ne li muy def ni yëfu kon la te yëfu kon ñëpp mën nañ kon kon kon kon lu ku ne mën nga ko des fois da koy laaj yaakaar naa débat bi après mujjul sori kon werante baax na mais na jubluwaay bi nekk leeral dëgg beneen bi est-ce que ku nekk war ngaa werante rawatina bu dee werante diine la rawatina su dee werante ci wàllu diine loolu dinañ ci gën a ñëw ci fin bi wa in kaana mu xeqan wa bi baytin damay garantiral léegi wa bi baytin waa bi ñu fi indi waa bi dafa am taqdir fii mais duñ ko tuddaat parce que arabe la nu tuddati la langue arabe n'aime pas la répétition langue arabe dafa bokk ci langue yi nga xam ne bëgguñu répétition répétition ci grammaire arabe ku koy def di làkk arabe lu bëri di répété ki lay déglu day xam ne yow sa arabe soreeku parce que benn mot boo ko utilisé ci commencement phrase bi li des lépp da nga war a utiliser ay pronoms yoo xam ne ñooy dellu ci mot bi kese wala nga utiliser ay conjonction conjonction de coordination wala yeneen moo tax fii waaw lañ indi muy xarf atf muy conjonction waaw bi dafa am lu fi lu fi xasaf loo xam ne dafa effacé mooy wa zaimun wa zaimun bi baytin mais wa zaimun bi soo ko indi woon dina dina dina dina baax ci arabe bi mais ki dégg arabe dëgg day xam ni yaa am problème yow ci sa làkk fii jubut moo tax yeneen bi répété wu te yeneen bi arabe bu arabe bu classique arabe bu normal lay moo tax waxaatul wa zaimun bi baytin fi wasatil janna déedéet dane wa wa bi baytin mais da ngay sous-entendre foofu am na wa zaim damay garantiral aussi bi baytin ci kër fu wasatil janna ci digg àjjana ci milieu bi fee fan lañ waxoon ci suuf fii ñu waxaat ci digg bi ah kan la yonent bi garantiral kër ci digg àjjana kan la li man tara ku bàyyi alkaziba fen fen lan mooy fen al imaamu nawawi ci sharha al minhaj dani alkazibu huwa al ixbaaru bi xilaafi al waaqi neen alkazib huwa al ixbaar mooy nga informé nga wax information boo xam ne bi xilaafi al waaqi dafa wuute ak réalité loolu mooy fen li nga wax dafa wuute ak li am loolu mooy ñàkk wax dëgg yonent bi nee na ki nga xam ne bàyyi na ñàkk wax dëgg garantiral naa ko kër ci digg àjjana wa in kaana maazixan doonte day kaf lan moo tax moo tax mbir mbiru kaf fen dajee bëri kaf fen dajee bëri da ngay gis boo xam ne li muy kaf gars yi di xàqataay ñii di daaw ñii di yëkka ci tànk dara du ci dëgg moo ko créé en toute pièce dajji ko mu bees sax dara du ci dëgg moo ko dajji ci paquet teg ko ci taabal ci léegi buntu kaf mën nit ki mën ngaa kaf tey wax dëgg mën ngaa kaf tey wax dëgg waaye dafa am ñoo xam ne seen kaf yëpp ay création dañuy wax lépp dara du ci dëgg te loolu di wax nit ñi di reetaan te li ngay wax du dëgg c'est interdit en islam waylu lillazi yuhaddisu wa yakzibu li yudhika nnaas te yonent bi aleyhi salaam mbugal nekkal am dafay wax di reetaan loo nit ñi ci kaw ay fen gaa yi di reetaan di xaqataay te li muy wax dara du ci dëgg mbugal ne yàlla wa in kaana maazixan doonte day kaf mu ni wa bi baytin wa bi baytin wa zaimun bi baytin encore damay garantiral kër fi aalal janna ci kaw ajana wa some fa gën a kawe li man xassana xadis bi fii li man xassana xassana bi digg verbe bi dafa am shadda loolu lañ tuddee fii lu mu daaf waxul li man xasuna waaye li man xassana ñaari am na différence su waxoon li man xasuna mooy koo xam ne rafet na xuluqahu jikkoo waaye dafa wax li man xassana ku rafetal xassana faalal mooy ku rafetal ku rafetal waxul ku jikkoom rafet waaye ku rafetal sa jikko lan mooy rafetal ku jikkoom rafet mooy kii jikko ji daa rafet ba pare moom amul problème mais kii jikko ji rafetul mais moo koy nekk di rafetal effort boobu muy def di rafetal jikko ji moom lañ koy fay parce que moom mooy def effort di rafetal jikko li man xasana xuluqahu xadis bi dinañ ci jàngee ay mbir mooy àjjana ay étage la bu fekkee dafa am suuf am digg am kaw loolu la lay tekki ah àjjana àjjana étage la kon léegi bu fekkee àjjana étage la loolu lan lay lan lay lan lay lan lay signifié àjjana lan la ah ay ay ay degré la kon li muy signifié mooy àjjana lu lu concret la n'est-ce pas du lu abstrait la lu am la lu réel réel la parce que bu dee dafa am ci suuf am ci digg bi am ci kaw kooku déjà image bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam jox mooy lu réel la kër gu existé la gu am gu réel. kon benn waaye bu ñëwee noonu naan noonu noonu àjjana ay ci biir xol ban xol sa xol yow wala sama xol àjjana ci biir xol la ban xol léegi àjjana biir xol la d'accord yonent bi alayhi salaatu salaam ni aajana garantiral naa fa koo xam ni dina am kër ci suuf am ku am kër ci digg bi am ku am kër ci kaw léegi xol daa am jaa am ci suuf am ci digg bi am ci kaw xol xol dafa am noonu dafa am escalier ko xol am ci suuf am ci digg bi am ci kaw ah kon bu alayhi salaatu salaam ne aajana am na kuy am kër ci suuf am ci digg bi am ku am ci kaw li muy tekki mooy loolu lu réel la lu concret la luñ mën a toucher la luñ mën a laal la luñ mën a gis luñ mën a xam la mais da koo melal aussi ci forme lan ci forme kër kon àjjana du ay xol boobu ñëwee naan àjjana xol la dañ naan la loolu yow sa wax la wala waxu yàlla la wala waxu yonent bi nga ne sa wax la ñu ne la demal tëddi nelaw parce que yow yàlla yónniwul ki yàlla yónni waxul loolu yow say wax concerné wuñ booy nettali ci diine da ngay wax li yàlla wax wala yonent bi mais say waxu bopp ak say opinion bopp gardel say opinion yow pour say opinion bopp ak say mbiru bopp yow diine du opinion diine du ay opinion toog rek di wax say opinion léegi loolu moo xew Sénégal dañuy woo benn waay mu toog di wax opinion ci diine mel ni diine amul téere amul source yow da nga am sa opinion am am sama opinion kii am opinion sañ ngaa ñëw wax loola neex ci diine yàlla te loolu mooy li yàlla tere mooy wa an taqulu ala allahi ma la taalamun wa man asdam mimman iftara ala allahi kadiba di sosal yàlla loo xam ni ay neen daan ci jëlee it ne yonent bi alayhi salaatu salaam sañ naa joxe garanti ci àjjana ci ndigalal yàlla subhanahu wa taala beneen bi mooy sopp gu ñu sopp wala jaadu gi mu jaadu léeg-léeg nit ki bàyyi werante donte moo am dëgg loolu nag dafa métti parce que nga am dëgg ba pare bañ a wax noppi loolu du ku nekk ko mën moo tax bàyyi bi nga koy bàyyi te yàlla tax te mu leer na la yaa am dëgg yonent bi lii la lay fay mooy da lay garantiral kër ci suufu àjjana parce que dafa diis du ñëpp ko mën am na koo xam ne bu amoon dëgg fii nga bëggoon noppi lool jamais mu naan la saa waay man ma jekku damaa jekku am dëgg mën a massacrer waa ji di noppi du ma ko def kii dama koy massacrer benn yoon mu jeex mu su ko defee doo dootu sonal nit ñi mais le fait que nga bàyyi te yàlla tax bàyyi boobu te yàlla tax ah moom la la yàlla di fayee kër ci suufu àjjana beneen bi mooy almira dafa am ñaar dafa am almirau almazmum ak almirahu ah al mahmud mooy werante boo xam ne dañ koo tere ak werante boo xam ne bu ñu sopp la werante buñ tere mooy werante boo xam ni jaayante wax wax wax pour dënd yi tàngal xuloo la xuloo après sax comme ni nga koy gisee des fois ay débat jékki-jékki nga jóg fi nga toog parce que waa ji dalaa jeex dalaa wax a wax ba nga jeexal wala dalaa dépassé nga jóg fi nga toog fekk ñu toog dóor wala ngeen bëkkante wala ngeen ànd weqante wala ngeen def leneen lu tax mooy yéen ñaar débat bi nekkatul débat argument mais da ngeen ko personnaliser te débat ci diine day nekk débat thématique dañuy dañuy tënku ci benn thème bu ñuy wax thème bi sujet bi lii la ñuy wax ci mais suñ génnee sujet bi personnalisé ko yow sax yaa fi waxoon nangam yow yaa fi defoon nangam yow daaw lii nga woon yow ren lii nga woon yow keroog nangam nga woon yow keroog lii nga woon léegi nekkatul débat wu xam-xam mais débat wu personne la te diine moom diine boo ci naree def débat wu personne di wane sa bopp dama tëdd nga nelaw parce que yonent bi jàngalewul loolu diine aussi jàngaluñu façon débat boobu moo tax li ñu bëgg mooy sooy wax ci wàllu diine mu nekk loo xam ni yàlla rek kay tax xam-xam ngay wax waa ji su wàccee xam-xam yow bu ko fekk ci bases yooyu mu nekk bàyyi ko fa yow ngay wax xam-xam waxal xam-xam ngir ñi lay seetaan waxal xam-xam ngir ñi lay déglu ñoom ñu jëriñu ñiy déglu ak ñiy seetaan xam ne waa ji moom waxatul xam-xam moom dalay attaqué personnellement sa famille lay attaqué sa personnage sa attaqué ah tribu bi nga bokk sa société lay attaqué sa réew lay attaqué ainsi de suite mais waxatul xam-xam waxatul xam-xam loolu benn la beneen bi mooy wàllu werante wala wàllu débat ci diine aussi ñu bàyyi xel ne diine du ko jóg dem débat de diine du ko jóg dem débat chaque fois ma wax ko fi mbokk yi des fois da ngay toog benn waay woola n'importe quelle heure ñu ne oustaz dafa am benn waay bu ñu doon débat trop quoi mais dafa dafa xaw a niveau am dafa xaw a kii ñu bëggoon nga dugg man yëguma bi ngeen ci débat fekkee wu ma ko ah maa ngi ci yeneen programme ma bàyyi sama programme ñëw di xuloo xuloo boo xam ni commencé wu ma ko bëgg koo jeexal. dañ doon débat fii benn coranique wala benn chiite tel tel tel am affaire yu mu wax ñu bëggoon vérification xam nga yooyu yow boo demee bay song débat na nga na nga ko song rek débat du ku nekk moo koy song lu tax nit ki mën ngaa jàng ba am xam-xam te doo mën débat kon li ma leen wax ne débat dafa am débat boo xam ne ma maanaam Mahmoud la li koy wane mooy Abdallah ibn Abbas débatteur na ak xawaarij yi Abdallah ibn Omar débatteur na ak gaa yi doon weddi alqadar ndogal. Abdullah ibn Abbas dem débattre ak xawaar yi nga xam ni dañ dañ doon takfiir mbooleem ñu ëpp ci saxaaba yi takfiir ñu ëpp ci jullit ñi def leen ay yéeféer dem beru ci benn dëkk bu ñuy wax xaarura ibnu abbas dem débattre ak ñoom génnee ci nombre bu bëree bëri ñu génn ci xawaar yi ñëwaat omar ibnu abdul aziz jamonoom débattre na ak xawaar yi alxasan al basri débattre na ak mu'tazila yi débattre na ak mu'tazila yi cheikh al islam ibnu taymiya rahimahullah débattre na ak ñëpp ibnu taymiya débattre na ak jahmiya yi débattre na ak chiidi débattre na ak suufi yi débattre na ak philosophie débattre na ak ñi nga xam ne ci logique la ñuy dem ah débattre na ak xadariya yi débattre na ak almalaaxida mooy ñi nga xam ne ay ata lañu dañoo weddi gëmuñu dara bépp kuréel boo jël ci lislaam ibnu taymiya débattre na ak yow bind na ci yow téere moo tax nag bañ ko moo tax bañ ko ñi ko bañ bëri benn borom xam booy fekk mu débattre ak mboolem kuréel yi sànku ci lislaam mooy ibnu taymiya beneen borom booy fekk mu bind ci kuréel yépp ci lislaam mooy ibnu taymiya kuréel yépp la bind koo bëgg a jàngi idéologie am demal ci livre ibnu taymiya bind na la wax la ñooñu ñooy ñan seeni seeni seeni faux argument parce que argument benn côté la am daa am argument am faux argument moo tax dafa bokk ci débat ñi ngay déstabiliser ki nga xam ni dafay ñëw di jéem a indi lu tegewul bul ko wax lan mooy sa dalil parce que dalil moom dëgg bi benn côté lay nekk da nga naan ko luy sa suba sa lënt lan la parce que yorul dalil mais boo ne ko luy sa dalil ah mu yëg ne ko man am naa dalil day am confiance da nga koy mettre en confiance mu commencé jàpp confiance commencé yëg ne kon yow nangu nga ne moom am na dalil parce que nee nga ko luy sa dalil te dalil benn côté lay nekk mooy dëgg mais da nga naan ko luy sa lënt sa faux argument lan la mais du looy argument amoo ko faux argument parce que argument benn côté bi lay nekk mais faux argument mooy nekk beneen côté bi kon nit ki mën ngaa am xam-xam mais doo mun débat xoolal saxaaba yi ni ñu bëreewul Ibn Abbas. moo ci dem songu xawaari ji pour waxtaan ak ñoom débattre ak ñoom génne leen am na ñu ko jéemoon sottiwul mën nga am xam-xam mais doo mun débat parce que débat li mu laaj dafa laaj nit ki am facili facilitation ci wax mais am réflexe ba pare tontu yomb ko tontu yomb ko beneen bi mu xam moom li mu yore ci dëgg ni mu koy sauvegarder mais ki mu jàkkaarloo li mu yore ci ay neen noo koy nettoyer noo koy nettoyer léeg-léeg dafa laaj réflexe bu rapide parce que waa ji des fois am na lu muy wax. ci moment boobu soo ko tontuwul soo ko bàyyee mu jàll moom da nga koy may confiance ba pare day indiwaat yeneen lënt kooku da nga koy tontu bi saa si wala nga noté ko boobu bu mu jàll parce que des fois day wax loo xam ne soo ko soo ko tontoo débat bi jeex des fois day wax day wax loo xam ne soo ko tontoo débat bi jeex loolu moo tax réflexe bu mag a mag la laaj parce que débat ñaar la imma nit ki jàng lu lënd ci lu lënt ci boppam lim jàng dafa lënt ci boppam leerul mu sukkandiku ci lënt yooyu di wax ay lënt wala mu nekk koo xam ne jàngul sax mais xel mu neex lay jaay. te xel mu neex xel mu neex a koy dindi fii ku lay jaay xel mu neex jaay ko xel mu neex waa ji naa leen waa ji jàng ba am ba am doctorat ci philosophie ba am doctorat ci philosophie papaam di ko feeteel feet ne ko yow yaay sama doom bu njëkk am doctorat ci philosophie te loolu amutoon ci famille bi defal ko feet bu rëy ñu toog lekk naan mu invité ñeneen heure reer jot ñu boole ko moom papaam reer tegal leen benn ginaar ci palaat comme moom doctorat la am ci philosophie mu ne ko papa. palaat bi mën naa la convaincre philosophiquement ñaari ginaar ñoo ci nekk benn ginaar new ci papa ñu ne ko xam naa ne yaa ma sut am nga doctorat ci philosophie mais palaat bi benn ginaar la ci nekk mu ne ko noonu papa ñaar mu ne ko léegi comme ñaar la man jël naa bi yow jëlal beneen man jël naa bi léegi yow jëlal beneen bi parce que xel mu rëy ak jaay intelligence la rek yow benn palaat bu am ñaari ginaar nga bëgg ne philosophiquement am na ñaari ginaar benn ginaar nga ne am na ñaar léegi jëlal beneen bi léegi loolu mooy jaay xel mu neex kese léegi ne nit ki lay jaay xel mu neex jaay ko xel mu neex parce que xel lu xel indi xel mën koo teg li wolof di wax ne làmmiñ bi ñorul du lekk moromam xel aussi noonu la ah nit ki comme tourner autour du pot la defal ni moom tourner autour autour autour du seau rek moom pot la def yow jëlal seau situation bi jeex loolu moo tax werante baax na. mais na tege ci xam-xam ba pare ki koy def na ko jekk na ko mën na ko mën parce que des fois nga dem di débattre lu tax moo soo débattre ci benn turu communauté communauté nga dem li ngay débattre mënoo ko da ngay lor waa communauté bi dañ naan pourtant ñoom diw ñoom diw la doon waxal wala ci ñoom diw la bokk nangam nañ leen yooyu yi mat a bàyyi xel moo tax bu ku nekk bu mu songu terrain bu ku nekk bu mu ko songu am na ñoo xam ne yàlla yombalal na leen ci nan lañ ko bàyyee ñu ko yàlla yombalalu ah ñoom ñu jéem a xool waaye ku jóg bëgg ko song rek mën ngaa indi ay ay ay ay ay dégâts collatéraux yoo xam ni réparer ko après du yomb réparer ko après du yomb beneen bi mooy bàyyi wax lu dul dëgg loolu dafa jafe moo tax ki nga xam ni bàyyi na wax lu dul dëgg rawatina ci ay kafam parce que am na koo xam ne waxtaanu normalam du ci wax waxtaanu normalam du ci fen mais moom fan lay fene mooy si kaf léegi kaf googu nag mu ciy wax dëgg li ko alayhi salaatu salaam wax moo dañ koy garantiral kër ci digg àjjana beneen bi mooy rafetal jikko gis nga comme téere bi li muy jàngale xadis li ci ëpp mooy ci wàllu ci wàllu comportement bon comportement fii résultat wu rafetal sa jikko mooy fa gën a kawe gis nga yonent bi tudd bàyyi werante boobu ci suuf lañ la jox bàyyi wax lu du dëgg donte da ngay kaf ci digg bi la mais sa jikko soo ko rafetalee fan nga jëm ca kaw ba tax gis nga rafetal jikko tuyaabam dafa bëri rafetal jikko tuyaabam dafa bëri loolu bokk na ci li nga xam ni danañ ko jàngat ci xadis boobu jàll léegi-léegi alxadisu saamin juróom-ñetteelu xadis bi mooy xadisu raafi ibnu makiis radiyallahu anhu wa kaana mimman shahida alxudaybiya an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal parce que Raafi ibnu Makis dafa am ñoo xam ne ci borom xam-xam yi dañuy mettre en doute ne saxaaba la loolu moo tax téere bi mu daan leeral ne wa kaana mimman shahida al Hudaybiya bokk na ci ñu fekkee sulxul Hudaybiya muy xare bu amoon sixième année ci égir bi jubluwaay bi moo nekkoon yonent bi alayhi salaatu salaam pacte boo xam ne benn pacte sulx mooy pacte Hudaybiya benn makaan la bu nekk diggante Médine ak Màkka benn place benn endroit yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la defoon pacte bi digganteem ak waa Quraysh tuddee ko sulxul Hudaybiya mooy le pacte de al Hudaybiya al Hudaybiya benn lieu la benn ville actuellement ci ci ci ci ci nekk diggante Màkka ak Médine foofu la ñuy tuddee al Hudaybiya yonent bi fa la defee woon pacte bi pacte boobu moom fekkee na ko moom Raafi ibnu Makis moom moo nettali xadis bi mais xadis bi nekkul xadis bu wér xadis bii nii borom téere bi indi fii qaal mu ni xusnul xuluqi nama li nga xam ne mooy jikko ju rafet nama kooku yokkute la yokkute jikko ju rafet dalay yokk mais du la wàññi wa suul xuluq jikko bu ñaaw su mun loolu gaaflu la maanaam dalay yàqal jikko bu rafet dalay yokk waaye jikko bu ñaaw dalay yàqal parce que gaaf la wal birru mbaax ziyaaratu fil umri dafay yokk dund wa sadaqatu sarax tam na u miitata sawi daf lay tere tere deegu bon kuy saraxe doo dee deegu bon dee doo dee dee bu ñaaw xadis bii nii alimam ahmad moo ko solo mu nekk ci musnadam waaye nekkul xadis boo xam ne xadis bu wér mbooleem chaîne de transmission yi ñëw ci xadis bi yëpp dañoo feebar dañoo feebar moo tax xadis bi moom duñ ci yàgg duñ ci sonn léegi lii lan lay wone lii lan lay wone mooy vraiment souplesse ak sérieux ak sérieux bi nga xam ne ahlu sunna dañ koo am boroom xam-xam boo mënti doon ci ñoom soo bindee téere bu téere bi amee njuumte dañ naan la téere bi lii nga ci indi danga cee juum loolu wallahi ahlu sunna keese keese keese ñoo ko sañ yeneen kuréel yi ku fi sañ a wax ne sa kilifa sa sëriñ téere bi li mu bind fii dafa juum fii kan moo ko sañ gis ngeen ñeneen ko keneen ku ko sañ ku sañ a wax ni sëriñam dafa juum fii mu bind lii mu bind fii daa juum fii erreur lañ nanguwuñ ànduñu seeg moom ku ko waxoon boo moytul balaa ngoon nit ñi yëg ne yow am na lu xew ahlu sunna rek ñoo ko sax ñu tax mooy ñun dañoo gëm ne benn téere moo parfait cent pour cent mooy le Coran mooy alquranul karim beneen téere bu dul téere yàlla bi am na lu ñu ci mën a diigat am na lu ñu ci mën a corriger war nañ ci mën a def correction am na war na mën a am erreur lu tax mooy téere bi ku ko bind nit la te nit matul nit matul kon téere bi muy bind téere bi mën naa bañ a mat mais alquran nit bind ko waxu yàlla la te waxu yàlla dafa mat yàlla bokkul ci melokaanam di juum yàlla du juum comme yàlla juum comme waxam mënta am juumte waxam mënta am juumte loolu kon ci li ahlu sunna di te wallahi ak a bëri ak a bëri téere yi borom ahlu xam borom xam ahlu sunna yëpp bind borom xam ne bu ñëwee di ko saaxaa di ko expliquer di ko corriger dañuy génnee erreur yi ci nekk. 40 xadis bu al imaamu Nawawi imaam Nawawi 40 xadis yi lañ wax mais livre bi ñaata xadis moo ci nekk ah 42 xadis moo ci nekk xam ngeen lu tax mu def ko 42 xadis. parce que xam nga lu tax mu ne 42 te 40 xadis lañ wax parce que deux xadis ci biir livre bi dafa faible xadis numéro 30 dafa faible laa yuminu ahadukum xata yakuna xawaahu tabaan li ma jiitu bihi xadis boobu wérul te pourtant mi ngi ci biir aar ba woon na borom xam dañoo leeral ne wérul beneen bi inna allaha farada faraida fala tudayiuha wa xaddada xududan ah fala tujawisuha xadis boobu aussi wérul léegi imaam Nawawi xam na ne ñaari xadis yi wéruñu mu dugal ko ci livre bi tuddee livre am 40 hadis alors que 42 la parce que deux yi sóoraale wu leen xam ne nañu wéruñu moo tax mu tuddee ko 40 boo jëloon riyaadu saalihin bu al imaamu nawawi am na à peu près 41 xadis yu faible yu ci nekk 41 xadis yu faible yu nekk ci biir riyaadu saalihin borom xam dañ ko corrigé boo jëloon bulughul maram bu ibnu xajar borom xam ne corrigé nañ ci à peu près 7 xadis yoo xam ne wéruñu lu tax mooy lan lay wone mooy borom xam ahlu sunna ñoom dañuy jàppal ngant seeni borom xam-xam beneen bi borom xam-xam bi jël xadis bu faible dugal ko ci téeréem tekkiwul ne xamu ko ci borom xam-xam yi jiitu yi ñoom dañ ko daan xam mais day am yeneen objectif yu tax ñu def ko ci mais dañ koy xam nekkul ne xamuñu ko ah kay xam nañ ko alxadisu taasi achar afwan wala alxadisu attaasi ah mooy neuvième xadis naam alxaya alxaya mooy pudeur mooy pudeur mooy kersa mooy mooy kersa loolu mi ngi ko dugal ci abwaabu xosnil xuluq mooy chapitre yi jàngale ba tey jikkoy rafet léeg li ñu gisoon mooy ngëneelu jikko bu rafet fii buntu nga ko xadis bi yi muy indi yëpp day jàngale jikko bu rafet lan mooy jikkoy rafet jikkoy rafet yi kon bokk na ci ban la ci mooy kersa kon kersa bu ko kenn dindi ci nit nit ku am kersa kooku daa am jikko bu rafet parce que kersa jikko bu rafet la ci xosnul xuluq la bokk nit ku amul kersa kon kooku am na problème kooku li mu am mooy suul xuluq la am mooy jikko bu ñaaw kerse buñ ko waxee mooy nit ki day am loo rus a wax day am loo rus a def day am nit koo rus daa am wax yoo xam ne da nga kaa rus a génne sa gémmiñ am acte yoo xam ne rus ngaa posé acte yooyu am ay nit ñoo xam ne da nga leen a rus suñu borom yàlla subhaanahu wa taala da nga koo rus malaayika yi da nga leen a rus am na loo xam ne rus nga di di ko def yàlla gis la am na loo xam ne rus nga kaa wax yàlla di ko dégg rus nga malaaka yi nga nekkal yonent bi alayhi salaam nee na kenn ku nekk am na ñaari malaaka yoo nekkal am nay malaaka yu nekk ak yéen yataaqabuuna fiikum malaa'ikatum bil layli wa malaa'ikatum bin nahaar am nay malaaka yu ñëw di monte ci yéen guddi ak bëccëg ñi dañu ñëw monte bu tàkkusaane ñu dem yeneen malaaka ñëw buñ demee yàlla laaj leen naka ngeen bàyyee sama jaam mi te yàlla moo leen gën a xam lu fa xew malaaka yooyu kii di bind lu baax kii di bind lu bon léegi al imaanu bil malaa'ika loolu lay gëm mooy gëm malaayika yi daf cee bokk nga gëm ni am na malaaka yoo nekkal nga rus leen gis nga jullit bi gëm malaayika yi li muy def ci nit ki mooy ku la gën a gëm malaaka day bàyyi xel ay waxam day bàyyi xel ay jëfam te ki nga xam ne moom gëm malaaka dafa faible ci moom wala sax gëmul malaayika yi wala sax gëmul ne malaayika yi ñi ngi nekk moom wala sax xamu ko wala sax xamu ko kooku des fois mën naa bañ a xam fu muy yem ci wax ak ci jëf mu ne an abi hurayra abu hurayra waxoon nañ mooy kan ci dars bi passé duñ ci ñëwaat an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jëla ci yonente bi alayhi salatu wasalam qaala mu ne al imaanu muy ngëm foi ngëm bid'un wa sittuna shu'ba soixante et quelques parties la soixante et quelques parties ngëm dafa nekk loo xam ne juróom benn fukki xaaj ak lu tege baatu bida borom xam ne suñ ko waxee mooy maa bayna waahid ila ashara mooy nombre la boo xam ne entre un ba dix la yeneen borom xam-xam yi ne maa bayna salaas ila tisa mooy diggante trois ba neuf kon li ñu ciy teg mooy soixante mën naa nekk 61 mën naa nekk 62 63 64 65 66 67 68 ba 69 mën naa nekk ba foofu mën naa nekk sax ba 70 kon ngëm yàlla dafa séddalikoo ay xaaj xaaj yooyu dem na ba atteindre 60 et quelques parties yoo xam ne boo ko doon tudd yépp ngëm yàlla la yépp day dugg ci buntu ngëm yàlla ragal yàlla da ciy dugg xayaa da ciy dugg muy muy muy muy kersa as-sidqu muy dëggu da ciy dugg as-sidqu da ciy dugg ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nga koo dugal ba mu àgg ci mu ne soxba ay xaaj wal xayaaw te kersa muy pudeur soxbatun min al iman ci benn ci part ci ngëm yooyu ci la bokk xayaa ci lay dugg ci benn ci part yooyu mooy nga dégg ci kon al iman wala al xayaaw muy kersa jikko bu jullit bi war a jikko war lan moo tax mooy jikko yi ku gëm yàlla la benn beneen bi dafa bokk ci jikko yi nga xam ne jikko yi rafet ji la al xayaaw min al iman ci ngëm yàlla la al xayaaw min xusnil xuluq dafa bokk ci jikko ju rafet moo tax nit ki su amee kersa day rafet jikko da ngay dégg ñu la noonu diw moom dafa bëri kersa loolu boo ko déggee ci nit rek mooy kooku ku baax la mbaax mi ngi ci moom nit ku gëm yàlla la am na imaan mais am na xusnil xuluq am na jikko ju rafet nit ki il faut am nga am kersa ñàkk kersa baaxul loolu nag mooy problème principal ñun bi ñu am suñu génération bii nii rawatina génération l'an 2000 génération antique génération wifi dañoo ñàkk pudeur gis ngeen yi ngeen di gis fi yëpp dégâts yi ngeen di gis fi yëpp di ko gis ci télé yi di ko gis ci internet bi génération 2000 bi génération wifi génération connexion dégâts yépp ñoom la audace bi ñu am audace bi ñu am fit bi ñu am sañ-sañ bi ñu am ñàkk kersa bi ñu am ah ñoom ñooy defee yenn yi xam nga taal sa taal sa caméra amoo dara looy def lu dul wane yëkkati tànk wàccee tànk après daal di koy publier sa Instagram wala publier ko sa def ko sa sa sa estati ay ay ay doomu aadama yu bëri bëri di ko seetaan wala tey nga daal di photo tey wane ne tey tey lii laa sol xool leen ma maa ngi nii tey neexuma deret damaa naqari deret sama noonu yàlla ngeen dee léegi nga yokkal sa bopp ay noon yokkal sa bopp ay noon nit waroo créer ay noon mais fii génération bi ñoom dañuy créer ay noon da ngaa war a créer ay xarit mais ñoom dañuy créer noonu far léegi loolu il faut nit ki ñàkk kersa ñu dema dem ba nit day filmer boppam def benn caméra pour pour une minute wala 30 secondes lan lay def saaga daal di jaar ci benn waay jaar ci turu nit saaga ko des fois mu jaar ci benn turu groupe saaga ko des fois turu benn association saaga des fois turu benn communauté saaga des fois turu benn benn dëkk wala benn réew saaga loolu kersa am na loolu ànd naa kersa il faut nit ki ñàkk kersa pour mën a def loolu pour mën a def loolu loolu moo tax kersa nekk lu baax parce que boo amee kersa yenn yi doo ko def yenn yi doo ko def moo tax mu ne alxayaau subatun min al iman kon ndëti kersa dafa bokk ci parti ngëm yàlla yi waaye dafa bokk ci li nga xam ni mooy jikko ju rafet léegi hadis bi li yonent bi alayhi salaam wax ne al iman ngëm yàlla bid'un wa situuna shu'ba dafa nekk ay xaaj loolu dafa nekk benn benn benn benn fondement bu am solo ci ngëm-ngëmu ahlu sunna maa sun dañoo gëm ne ngëm yàlla iman ay parti la léegi su fekkee ay parti la kon parti bi mën naa dem yeneen parti yi des noonu ah ahlu sunna loolu lañ gëm mooy iman ay parti la léeg-léeg parti iman yi mën naa dem nit ki mën naa ñàkk kersa n'est-ce pas nit ki mën naa bañ a dëggu n'est-ce pas waaye yeneen yi mi ngi fi yeneen yi mi ngi fi yeneen yi mi ngi fi mais su dee yeneen kuréel yi comme xawaari ji dañuy wax iman déedéet juz'un la yatajazza dafay nekk benn bloc benn bloc kese la lépp dafay nekk wala dara bañ fee nekk léegi kon moo tax ñoom ñu ne boo sàccee iman bi yëpp dafa dem soo fenee iman bi yëpp dafa dem boo njaalawee ina iman bi yëpp dafa dem boo jëwee ngëm yàlla bi yëpp dafa dem kon léegi yow ngëm yàlla gi dara desatu ko léegi sa ngëm yàlla bu fi dara desatu lan nga yéeféer nga moo tax ñu ne ñoom ku fenn yéeféer nga ku sàcc yéeféer nga ku njaalo yéeféer nga ku jëw yéeféer nga kon ñëpp yéeféer lañ moo tax xawaar yi ñoom ku topp seen méthode mooy ñëpp lislaam ñëpp a génn ci lislaam kenn desul ci lislaam parce que bàkkaar bu mag soo ko defee muy irtikaabul kabira bàkkaar bu mag soo ci tàbbee sa ngëm yàlla dem na sa ngëm yàlla bu demee dara desatu fi léegi kéeféer moo fi des ahlu sunna nag dañ naan déedéet ngëm yàlla ay parti la parti bi mën naa dem bii des bii mën naa dem bii des bii mën naa dem bii des kon lépp mën ta dem su amee lu dem am na lu des loolu moo tax alayhi salaatu al iman bidun wa sa wa sittuna shu'ba am na riwaaya bidun wa sab'una shu'ba loolu lu mat a bàyyi xel la ci ci xadis boobu beneen bi mooy ahadisul ashir fukkeelu xadis bi an imran ibnu xusayn imran ibnu xusayn bokk ci saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadis bi nga xam ni day wax ni soo mënta julli nga taxaw toogal soo mënta toog Xuseyn moo ko nettali ci lan la mooy Imran dafa amee woon hémorroïde externe dafa amee woon hémorroïde externe des fois bu doon julli pour taxaw day difficile ci moom pour mu taxaw mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko indi bawasir dama amee hémorroïde bu ma sonal pour ma taxaw julli dafa métti mu ne ko salli qaa'iman fa in lam tastati fa qaa'idan fa in lam tastati fa ala jamb julli nga taxaw soo mënta taxaw nga toog soo mënta toog nga tëdd ko mooy Imraan ibn Xuseyn nettali na aussi ay xadis yoo xam ni mooy xadis bi siiw ci wàllu ci wàllu jaayante ñu tuddee mu baya bayaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi manshatina wa makrahina wa ala asaratin alayna boobu nga xam ne mi ngi ci saxih muslim ci kitaabul imaara Imraan mi moom moo ko nettali kon nettali na ay xadis yu bëri waaye bokkul ci saxaaba yi nga xam ne seen xadis dafa néew lool bokk nga xam ne seen xadis dafa bëri lool mais ñi nekk ci juste milieu bi moom ci la bokk moom it bokk na ci ñi nga xam ni gudd nañ fan ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo nettali mu ni moom it bi yonent bi génnee àdduna gaa yi demoon Syrie demoon Syrie Damas ca ca ñoom la bokk dani alxayaa nee na yonent bi alayhi salaam nee na alxayaa li nga xam ne mooy pudeur mooy kersa laa yati illa bi xayrin nit ki ko am kersa du la indil mukk mukk mukk lu dul lu baax léegi lan nga ciy déggee lan nga ciy déggee lii mooy mantuuqul xadis dax lañu fi dee mantuuq ak mafhum ci usul mantuuq bi texte bi li mu wax mooy kersa lu baax rek la lay indil ku am kersa lu baax rek nga ciy jëlee kersa gi du la mës a décevoir lu baax nga ciy am mais mafhum bi compréhension bi li ngay déggee ci xadis bi mooy ñàkk kersa ñàkk kersa lan la lay indil ah ku ñàkk kersa seetaan ko rek koo xam ni day day ñàkk kersa waajuram papaam ñàkk kersa yaayam ñàkk kersa professeuram ñàkk kersa jabaram ñàkk kersa jëkkëram ñàkk kersa doomam ñàkk kersa xaritam ñàkk kersa ay dëkkandoom fu mu dem ñàkk kersa oto sax bu ci duggee balaa moo wàcc ñàkk fa kersa ñàkkee fa nit ñi kersa bu demee marché nduggi sax balaa moo ñibbisi ñàkkee fa nit ñi kersa bu duggee ci boutique balaa moo génn ñàkkee fa nit ñi kersa fu mu dem ñàkkee fa nit ñi kersa léegi kooku mën naa am lu baax commencé diinootu daal nit ñi loo leen ji loo leen jox loolu lañ lay fay no nit ñi loo leen won rek ñu fay no loo leen won ñu fay no moo tax boo wonee nit ñi boo wonee nit ñi kersa won leen yar ak teggin nit ñi gi nit ñi nga am ci ñoom yar ak teggin mais nit ñi boo leen wonee ñàkk kersa sa journée du neex sa journée du neex de waaw di nga bëgg a concentré wu def dara mu tëdd dina am foo bëggoon a dem boo moytul di nga ko bàyyi dem te dina la li tax mooy ñàkk kersa gi nga ñàkkee nit ñi kersa moo la meer ci situation bi mooy yow musi musiba rek ngay nekk chaque fois da ngay da ngay nekk benn situation boo xam ne ñàkk kersa gi moo la ko yóbbee moo tax des fois nag dara gënta nekk musiba yonent bi alayhi salaatu salaam ne kersa mbaax rek lay indil nit ki ñi taxaw ne attention man xamu leen ma de damaa ñàkk kersa yow ñu sant la nga am kersa yow nga ne da ngaa ñàkk kersa yow nit ñu ne déet nga taxaw di ko wax publiquement nag ak di di défier nit ñi ci loolu man damaa ñàkk kersa su ngeen ma xamul man damaa ñàkk kersa léegi da ngaa ñàkk kersa demal musiba rek ngay am. ku ñàkk kersa seetaan ko aduna aduna moo ko yar journée bu mu génn journée de déception lay doon journée bu diir bu ridd bu metti bu saf sàpp lay doon ci moom dina dina dina ñam loo xam ne bu ñëwee du ko wax ci kër gi dina ñam loo xam ne bu ñibbisee du ko wax kenn loolu moo koy yóbbi mooy ñàkk kersa gi ñàkk kersa gi dina tax léeg-léeg ku ko ëpp doole jàpp ko dóor ko ba yeew ñàkk kersa gi dina tax ñu daggal ko saaga ndey bu mu mës a dégg ñàkk kersa gi dina tax ñu daggal ko saaga baay bu mu mës a dégg donte sénégalais du saaga baay saaga ndey rek lay saaga ñàkk kersa gi dina tax des fois mën naa ñàkk liggéeyam ñàkk kersa gi mën na koo yóbbee mu ñàkk ay xaritam am na ku boo xam ne bëri waa na ay xaritam yu mu ñàkk lan moo tax mu ñàkk xarit yi ñàkk kersa bëri waa na sax ku sëyam tas nga ñàkk kersa ñàkk kersa bëri waa na koo xam ne ñàkk na ay relation amicale ci lan la ko ñàkkee mooy ñàkk kersa bëri waa na ku nit ñi bàyyi dégagé wu ci moom bàyyi ko complètement dégagé wu ci moom bàyyi ko di ko seetaan lan moo lan ngir lan mooy ñàkk kersa kon xadis bi ñaari ñaari sens yëpp la am alxayaa laa yaati illa bi xayr mooy kersa lu baax la nga lay indil mooy nit ku am kersa lu baax nga ciy jëlee wallahi doo ci mës a am déception doo ci mën a doo ci mës a am regret parce que xayaa ñaara ci daje xuluqu ahlul iman la jikko ñi gëm yàlla la xuluqu xuluqun min min al axlaaqi al xasan dafa bokk ci jikko yi rafet ki gëm yàlla kersa jikkoom la ki gëm yàlla dafay jikkowoo jikkooku kersa jikkooy kersa day am kersa waaye ki am kersa jikko ju rafet la am parce que al alxayaau min min al axlaaqi al xasana kon nit ki da koy bàyyi xel mais safaan bi comme alxayaau laa yaati illa bi xeer kersa lu baax rek lay indi mantuux bi mooy loolu mais mafhum bi li ñuy comprendre mooy ñàkk kersa musiba la lay indil kon moytul ñàkk kersa man damaa ñàkk kersa ba di ko déclarer musiba gën a rëy loolu ñàkk kersa même soo ko defee nëbb ko mais taxaw publiquement di déclarer ne man damaa ñàkk kersa bu yoma ngeen xam ko dès maintenant waaw dañ lay seetaan nag nit ñi dañ lay moytu te seetaan la te ñàkk kersa gi yow yaa ciy souffrir nit ñi mën nañ ci souffrir nit ñi mën nañ ci souffrir mais yow yaay gën a souffrir nit ñi ci ñàkk kersa gi yaa ciy njëkk a souffrir ñëpp yaa ciy njëkk a souffrir ñëpp loolu moo tax alxayaau laa yati illa bi xeer mu ne an ibnu omar jëlee nañ ci ibnu omar muy abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu anhu nekk saxaaba waaye bokkoon ci xale saxaaba yi ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Omar bokk ci borom xam-xamu saxaaba yi bokk ci saxaaba yi gudd fan ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam moom Madina la mas a toog xam nga wax naa leen yonent bi mu génne àdduna dafa am saxaaba yu génne dem toogi Màkka ñii dem Irak ñii dem Damas toogi fa ainsi de suite mais moom ci ñi toogoon Madina ci la bokk Ibn Ibn Omar ñi ci ñi toogoon Madina ci la bokk su génnoon Madina mu daa ñëw Màkka aj si Màkka wala mu umra delluwaat Madina la toog ba ni mu faatoo saxaaba yi nga xam ni Madina lañ leen suul muy baqiya muy almeer bi nekk ci kanamu jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni une dizaine de mètres la ak jàkka ji jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon na espace gënoon na sore mais Médine dafa màgg ginnaaw bi Médine dafa màgg ba yenn borom xam-xam yi nee nañ mosquée Médine bi mosquée bi kese mosquée bi jël na village yu Médine jamono yonent bi mosquée bi rek jël na village yu Médine village yu Médine yëpp boo ko jëloon tey génnul tey enceinte mosquée yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que mosquée bi dañ dafa subir ay ay extension dafa subir extension ci côté yëpp ci quatre côté yëpp dafa subir extension moo tax léegi almeer bi dem na ba gën ko jege muy baqee saxaaba yi ñu suul foofa Abdullah ibn Omar si la bokk Abdullah ibn Omar si la bokk yaa Aïcha radiyallahu anha ma nga fa ak ñeneen ak ñeneen boo fa demee li yéeme da ngay fekk chia yi dañuy ñëw ba ci xabru yaa Aïcha radiyallahu anha di tufli di di kajj di kajj suuf si di wéq bu militaire yi ñëwee ñu daw pour wone seen mbañ giñ bañ yaay Aïcha dañu fekk benn siit mu taxaw di xaaxtandiku di tufli lan la mu ne yaa Aïcha mu tëdd fii ko yow da ngay rey sa bopp de da ngaa def ndànk Aïcha moom mi ngi xéew xéewalu mi ngi xéewalu ci xéewalu ajana yi yow ngay rey sa bopp ibnu omar nee na anna rasulullah ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajulin dafa romb benn waay min al ansaar ci waa ansaar yi saxaaba yi dañu séddalikoo woon ci côté dëkk mooy al ansar ak al muhajirun muhajirun yi mooy ñi nekkoon Màkka gëm fa yonent bi gàddaay ñëw ànd ak moom ñëw Médine Médine ñi fa dëkkoon noonu ñuy tuddee al ansar daañu wax ansaar yi wala ñu wax madani soo déggee madani mooy ku dëkk Médine boo déggee ansaar yi mooy aussi ku dëkk Médine ansaar mooy ñi dimbale yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu tuddee leen ansaar parce que bi yonent bi jàqee ci ñoom la ñëw di dimbale ko ah mu ne yonent dafa romb benn waay ci waa ansaar ci waa Médine wa yaizu axaahu fil xayaa muy waar benn mbokkam ci waa ansaar yi di ko waar ci kerse gu bëri gi mu nekkee wàññil sa kerse gi yow da ngaa bëri kerse boobu ëpp kerse gi daf lay xañ nàngam ah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ne daahu bàyyi ko ak kersa fa inna alxaya kersa ci boppam min al iman ci ngëm yàlla la bokk isan alxayaau min al iman kon nit ki bu fekkee am na iman képp ku am iman képp ku am ngëm yàlla jikko bii di alxaya da nga kaa war a am mooy mooy kersa kersa gi mooy lan lan mooy kersa mooy da ngay rus yàlla da ngay rus yàlla benn beneen bi nga rus malaaka yi nga nekkal nit ku nekk am nga ñaari malaaka yoo nekkal nga rus malaaka yi bàyyi leen xel ci say wax ak say jëf ñetteel bi mooy nga rus sa bopp yow sa bopp da ngay rus sa bopp ñeenteel bi mooy nga rus wax lenn li ñu lay ci ñu lay dégg am kàddu yoo xam da nga koy rus a wax nit ñi di ko dégg juróomeel bi mooy am jëf yoo xam da nga koy rus a jëf nit ñi di la gis lii du ma ko jëf parce que rus naa nit ñi di ma ci gis lii du ma ko jëf parce que rus naa yàlla di ma ci gis lii du ma ko jëf parce que rus naa malaayka yi di ma ci gis lii du ma ko jëf parce que rus naa sam bopp lii du ma ko wax parce que rus naa yàlla rus malaayka yi rus sam bopp rus nit ñi dafa am solo wax nit ki képp koo xam ni am nga rusukaay rek jàmm ngay am soo amul rusukaay nag ah li lay dal ci ay musiba dana bëri te su boobaa dana nekk loo xam ne yow yaa ko yóbbee sa bopp alxadiisu asaani achar mooy xadiisu fukk ak ñaareel bi mooy xadiisu Nu'man ibnu Bachir an Nu'man ibnu Bachir lim nettali ci ay xadiis bëriwul xadiis yu néew la nettali saxaaba yi nga xam ni ñoo nettali xadiis yu tuuti moom ci la bokk loolu nag lan lay tekki comme Bilal ibnu Rabah Bilal li ngeen di gis xadiisam bëri na xadiisu Bilal li ngeen koy gis bëri na ah Abu Bakar Abu Bakar sax am na yu mu nettali tuuti par rapport ak Bilal mais bilaal dafa bokk ci ñi néew lu tax mooy ko alimaamu suyuti waxee ci alfiyam ak ci tadribu raawi mooy saxaaba yi iksaar bi ak taqlil bi maanaam bëri nettali xadis ak néew gi fan la dellu mooy yonente bi alayhi salaam bi mu génn àdduna saxaaba yi toogoon di jàngale saxaaba yi toogoon di jàngale seeni ndongo nettali seeni xadis ñooñu seen xadis moo tasaaroo tekkiwul na ñoom rek ko dégg ci yonente bi yeneen saxaaba yi dégg nañ ko mais ñoom dañ koo nettaliwul ñii nettali ko moo tax ñu gën a siiwle des fois nga dégg ku kon ku naan la yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu fi jógee saxaaba dañoo racistoon parce que bilaal noir la moo tax bilaal nettalewuñu ay xadiisam kooku waxi dof la saxaaba yi musuñu raciste musuñu raciste yonente bi jàngaloo leen raciste ba ñuy raciste déedéet kon xanaa dañoo raciste ci Aboubacar Aboubacar arabe la woon di te moo nekkoon premier xalif après yonent bi te bëriwul xadis xanaa Aboubacar dañoo raciste ci moom dañoo raciste ci Aboubacar kon ah dañoo raciste ci Aboubacar te Aboubacar arabe la du du nit ku ñuul mais jàngale bi moo tax seen xadis tasaaroo jàngale ñi doon jàngale lañ gaa yi nettali seen xadis Numaan ibnu Bachir qaala nee na samitu dégg naa rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu ne alxalaalu bayinun li araam dafa leer naññ li dagan dafa leer nañ wal xaraamu li araam bayyinun dafa leer nañ loolu yaakaar naa lu neex a dégg la li araam dafa leer nañ fii kan moo xamul lu araam kan moo xamul lu araam lu araam kan moo ko xamul ñëpp xam nañ lu araam lu dagan aussi ñëpp xam nañ lu dagan lan moo fi nekk mooy topp bànneexu bakkan ak mbir mi dala arrangé nga topp ko te di jéem a justifié wu. mais yàlla dafa na nit ki ci ci biir ci biir boppam benn régulateur wala benn automatisme boo xam ni automatiquement xam nga lu baax xam nga lu bon comme ni ko yàlla waxee fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ilham yàlla ilham na la fujuraha wa taqwaha liy baaxal sa bakkan ak li koy baax li koy bonal nit ku nekk xam nga ko nit ku nekk xam nga ko kii nekk ci kaar bi wala ci tataa bi yóndu pooso waa ji di jël téléphone bi di rocci ak ay baaraamam moo gën a xam ne li muy def baaxul moo gën a xam kon kenn ku nekk fii xam nga lu baax ak lu bon ki bàyyi ba guddi mu yéeg miir sol lu ñuul nuroog lëndëm gi yéeg miiru jaambur di sàcc ay xarab wala dem sàcc teleem ah wala sàcc ay tablette ak ay portable wala mu yenu xaalis wala leneen dem moo gën a xam ne li muy def baabu moo gën a xam xam gi mu ko xam moo tax mu bàyyi ba heure boobu choisir heure boobu sol lu ñuul mën a nuroog lëndëm gi ah planifier ko parce que xam na ne li muy def baaxul nii la mën a def pour daal di koy am. kii agressé xam na li agressé baaxul kii njaara noonu kii naan sàngara noonu gis waa ji buy naan sàngara bu duggee ci boutique bi nga xam ne mooy fi ñuy jaayee yow da ngay ñëw librement jënd jël li ngay jënd tànn sa ndox tànn sa boisson tànn li ngay tànn librement ñëw teg moom day xool gauche xool droite jël canette bi gaaw laxas ci benn morceau wala ci benn këyit bu ñëwee ci caissière bi da koy làq ci ginnaaw ku ñëw mu ne noonu avancé dem leen dem leen ba affaire bi libre mu teg ne ko gaawal loolu tax xam na ne li muy def baaxul moo gën a xam. fii ñi njëkk a tux ñëpp ñi njëkk a tux ñëpp bi ñuy tux dañ doon làqatu lu tax ñuy làqatu lan moo tax ñuy làqatu parce que xam nañu li ñuy def baaxul ñëpp a ko xam ñëpp a xam li ñuy def baaxul kii musique naan la musique non dara nekku ci moo la gën a xam ne musique baaxul moo la gën a xam woon musique baax na léegi comme musique baax na yow d'accord nga ne musique baax na léegi boo dee ban lañ lay tegal ban ban son nga bëgg ñu tegal la ko sa jour dëj du ko nangu parce que xam na ne baaxul moo la ko gën a xam kon li baax ñëpp xam nañ ko li bon ñëpp xam nañ ko waaye dafa am lu am wa baynahuma dafa am benn intervalle diggante lan diggante li araam ak li dagan am na benn intervalle bu fa nekk boo xam ni ah diggante boobu am na fa loo xam ne mushtabihaat am na aussi mushabbahaat mooy ay lënt lënt mooy lu nuroog dëgg te du dëgg dafa xaw a nuru dëgg te du dëgg yu lënt yooyu laa yaalamuha xamu ko kasiir lu bëri mina naas nit ñi mais waxul kenn xamu ko de am na ñu ko xam am na ñu ko xam dafa ne laa kasiir waxul laa yaalamuha ahadun mina naas parce que dafa am ñoo xam ne bu ñu firi xadis dañuy jumf dañ naan kenn xamu ko kan moo wax kenn xamu ko est-ce que kenn xamu ko moo nekk ci xadis bi dafa wax laa yaalamuha ahadun mina naas déedéet laa yàlla moo xamu ko kasiir lu gën a bëri ci nit ñi kon li muy tekki mooy am na minorité bu ko xam léegi minorité boobu xam ko ñan la mooy fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun ahlu zikri ñoo ko xam mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi xam nañ lënt yii lu mu lënt lënt ñoom xam nañ fan la bokk lu araam la bokk wala lu dagal léegi yonent bi alayhi salaam mu ne man ittaqa al mushabbahaati wala al mustabihaat képp koo xam ni moytu na moytu na lan la moytu. yu lënt yi kooku istabra setal na set na di diini yi diineem wa irdihi ak daram li wolof di wax ni dañ dina màtt ak du màtt bul jox sa baaraam dina màtt ak du màtt yow boo téyee sa baaraam sa baaraam dina dem sa baaraam dina dina am lu ci xew dara xewu ci waa ji dafa dugal baaraam ne la pourtant affaire bi màttewul de doo dugal nga essayé ah moom amaana bi mu dugalee affaire bi parewutoon pour màtt yow mën ngaa dugal rek affaire bi màtt yow bul dugal léegi ki nga xam ne moytu na yu lënt yi lënt yooyu moytu na ko nee na kooku setal na diineem setal na deram diineem lënt du ci am mais esi moom kenn du ko accuser ci dara parce que setal na boppam waaye wa man waqa fi shubuhaati ah ku tàbbi ci yu lënt yi karaayin da ngay mel ni sàmmkat da ngay mel ni sàmmkat yar a buy sàmm xawlal xima ci wetu tool boo xam dañ koo protéger tool boo xam ne dañ koo sécuriser yuusiku ah dañuy njort dañuy yaakaar an yuwaaqiahu mu daal di fay tàbbi ku xam ku xam wàllu sàmm naa ñu ci bëri ci yéen ay booy Dakar lañ mais ku dem ci àll bi xam luy sàmm li sama mbokk pël yi di def fekk benn séeréer buy bay toolam ñu ñëw indi seen xar yi wala seen nag yi muy sàmm ci wetu tool bi des fois pël bi dem jaaxaan ci taatu garab gi di noppal léegi xar yeeg béy yi moom ñoom dañuy topp ñax bi di lekk rek dañuy topp di lekk di lekk di lekk mën nañ dugg ba dugg ci toolu jàmm loolu la ñuy tuddee ruur ci wolof ruur ruur mooy dugg jur gi dugg toolu jàmm daal di koy lekk. léegi sooy sàmm ci wetu tool lu gën a bëri soo moytuwul rek da ngay jur gi dañuy tàbbi ci tool bi dañ fay dugg léegi lu gën a bëri aussi koo xam ne da ngay tourner autour li araam nga nekk ci wet gi naan non nee nañ araam nag araamul mais man àgguma ci wetu la araam li naa nekk la plupart du temps da ngay tàbbi la plupart du temps da ngay tàbbi comme li yàlla wax ne wala taqrabu zina bu leen jege njaalo nga ne non yàlla nee na bu leen jege mais waxul. yàlla waxul yàlla li waxul waxul bu leen njaaloo dane bu leen jege afoon afoon wala yàlla waxul bu leen njaaloo dane bu leen jege mais comme dane bu leen njaaloo man njaaloo wuma damaa jege rek léegi boo jegee rek tàbbi ci parce que yàlla tere tere dafa tere nga jege soo jegee da nga ciy tàbbi soo jegee da nga ciy tàbbi loolu moo tax bëri waa na ku nekk ci wetu lënt moo ko ci tàbbal day nekk ak benn groupe gars yi du tux mu ne non c'est que man de du ma tux man ngeen tux léegi tuxoo toog ci gars yi ñuy tux bu yàggee nga tux saxaar day dugg di dugg di dugg gars yi di sëqat ñii di kii naan pourtant affaire bi saf na lii neex na di guut nga bëgg a découvrir affaire bi foog nga jël booy jël première mégo bi doo ko tey léegi première mégo boobu mooy indi dégâts yi deuxième mégo ci lay topp ba centième mégo loolu moo tax mu ni ka raa yara xawlal ximaa yusuf an yuwaaqihu ala xanaa xamu leen ne wa inna li kulli malikin ximan buur bu nekk dafa am toolam boo xam ni kenn du ko laal buur àdduna yeeg buur yëpp dafa am doo xam ne ci ñoom zone interdite la zone rouge la kenn du fa dugg waaye yàlla aussi ala xanaa xamu leen ni inna himallah yàlla tool bi mu am nga xam ne buggul kenn dugg ci fi ardihi ci suufam si maharimuhu mooy li mu araamal yàlla li mu araamal rek la jël protéger ko tere leen ngeen bañ ci dugg mooy tool bi nga xam ne daf ko sécurité daf ko ñàkk daf ko barbale ne leen bu leen bëtt barbale bi bu leen ci dugg yàlla loolu moo ko yitteel ala xanaa xamu leen ne wa inna fil jasadi nekk na ci yaramu nit ki yaramam mudga benn morceau boo xam ni isa salahat am na riwaaye isa saluhat ñaari am na salahat ak saluhat bu fekkente ni morceau boobu baax na salahal jasadu kulluhu yaram bi yépp day baax ku la gën xol moo la gën xol bi bu ci ragal yàlla nekkee nit ki day ragal yàlla bu ci imaan nekk nit ki day imaan bu ci taqwa nekk nit ki day am taqwa bu ci xayaa nekkee muy kersa nit ki day am kersa mais xol bi bu ci banditisme kers ñàkk kersa jubat yi dëng ah triandisme bu ci nekkee nit ki noonu lay mel kon xol bi su baaxee nit ki day baax mais xol bi su bonee nit ki bon mboolem jikko yu baax yi bu fekkee mi ngi ci xolu nit ki nit ki day am jikko yu baax ci kaw dafay reflété wu à l'extérieur mais su fekkee mbon moo nekk à l'intérieur mbon gi aussi dafay reflété wu à l'extérieur day feeñ ci kaw moo tax nit ki war a yittewoo defar xolam wa isa fasadat xol bi su yàqoo fasadal jasadu kulluhu yaramu nit ki yépp dafay yàqu alaa wa hiya al qalb morceau boobu mooy xol nit ki bu fekkee ni ragal yàlla kersa bëgg lu baax dëggu sérieux sincère maandu yooyu dafa ne ci xol bi day génn ci biti mais bu fekkee xol bi di koy bon ñoo fa solo weddi yàlla moo ne ci xol bi weddi yàlla mooy mooy feeñ ci moom ñàkk wax dëgg moo ne ci xol bi mooy feeñ ci kaw ak naafeq moo ne ci xol bi mooy génn ci kaw ak weddi yàlla moo ne ci xol bi mooy feeñ ci kaw ñàkk kersa moo ne ci xol bi mooy génnaat ci kaw mooy mooy génnaat ci kaw xadis bi liñ ciy jàngat bokk na ci mooy li yàlla araamal dafay araam ba faw li yàlla daganal dafay dagat ba faw li araamoon jamono yonent bi ba léegi moo araam virgule du ci changé modernité mënta moderne moderne ba am luñ ciy changé naan nañ ciy modifié nañ modifié war nañ changé affaire bi war naa mën a dagat des fois nga dégg ku naan la mais xam nga riba jamono yonent bi alayhi salaatu salaam vraiment d'accord mais ñun suñ jamono ji riba vraiment war naa mën a dagat parce que boo ci tàbbiwul doo am kër doo am oto doo am ainsi de suite léegi ñaata ñoo moo ci riba am oto am kër ñaata kon sa wax ji mënta tege beneen bi lu yàlla araamal kan moo am fitu ñëw di ko daganalaat kan la fii kan moo fi daganal kan mooy araamal yàlla mooy daganal kan mooy araamal yàlla mooy araamal waaw léegi li yàlla araamaloon day araam ba léegi yow yàlla daganu la ko fenn nga bëgg am audace di ko di ko daganal xam nga fii loi doomu aadama yi loi nit ñi rek constitution bu ñu nee article quatre vingt tey article quatre vingt muy offen offense au chef de l' état article quatre vingt suñu constitution offense au chef de l' état moo fi mës a nekk te article bi ba léegi dañu fi yow mën ngaa xëy xëy xëy ne non article bi non gars yi dañuy caaxaar man man abrogé naa ko ah article bi abrogé naa ko bis ni ki tey article quatre vingt léegi amatul yow sañ nga ko te loolu loi nit la loi nit léegi loi yàlla yow nga bëgg a ñëw abrogé ko loi yàlla ban audace nga am. ak ku la jox autorisation bi loolu du mën a nekk ma taxoon li yàlla araamaloon day araam yaa dagan na day dagan beneen bi li araam dafa leer nañ li araam ñëpp ko xam sàcc musique njaalo fen jëw naan sàngara jëlloo moomul rey nit randal turiyaande yooyu yi araamoon ñëpp xam nañ mais yi dagan aussi ñëpp xam nañ dafa dagan waaye diggante bi am na ay mbir yu lënt mbir yu lënt yooyu yan la mooy mbir yu lënt yooyu des fois day lënt ci yow mais am na ñoo xam ne leer na ci ñoom moo tax lënt bi lënt bi lënt bi moo fa nekk loo xam ne lu part lu partitif la c'est pas général mooy dafa lënt ci la plupart des gens mbir bi dafa lënt ci ñoom mais am na ñoo xam ne leer na ci ñoom mooy borom xam-xam muy ahlu zikri loolu moo tax lu lënt ci yow da ngay dem xool ci koo xam ne leer na ci moom nga daal di leerul ci moom mu daal la koy leeralal mu daal la koy leeralal loolu ñu bàyyi ko xel mooy mbir mi li lënt lënt ci ñëpp moo tax alayhi salaam dafa wax ne laa yaalamuha kasiru min annaas li bëri ci nit ñi xamuñu ko mais am na ñu ko xam ñi ko xam ñooñu mooy fasalu ahla dikri laaj leen borom xam-xam yi ñu du xamal leen in kuntum laa taalamun bu fekkee nekk ngeen ñoo xam ne xamu leen am na mbir yoo xam ne dafa leer naañ am na mbir yoo xam ne dafa daf ci leer naañi ci araam am yu leer naañi ci ci dagat mais am dafa am lënt nit ki mën naa am loo xam dafa lënt ci moom lu tax mooy amalu ko xam-xam benn waaye mën naa ñëw ne la waaw man dama am lënt lënt bi lan la mu ne yàlla ci suratul mujaadala suratul mujaadala qad samia allah qawla lati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau taxaawurakuma léegi foofu xadis boobu nga xam ne dafa wàcc ci xawlata bintu malik ñeneen ñi ne xawla bintu saala mooy jëkkëram moo ko wax ni su ma naratee séeg yow yàlla naa séeg sama yaay ah def naa la sama ginnaaw nga mel ni sama yaay mooy mudaaxara xam nga xadis bi foofu aay bi loolu la jàngale loolu leer mais mën naa ñëw ne la man dama am lënt man contraire bi la man sama soxna moo ne ma su ma naratee séeg yàlla naa séeg sama pap man xam naa ne bee moom leer na nañ nit ki su la waxee ne su su fekkee borom kër moo soxna am su ma naratee séeg yow yàlla naa séeg sama yaay loolu leer na ci man aw ma ci lënt mais lënt bi ma am mooy nit ki ku jigéen ki moo wax borom këram ne ko su ma naratee séeg yow yàlla naa séeg sama pap xam nga loolu ñëwul ci aay bi loolu mën naa nekk lënt léegi lënt boobu fooy dellu da ngay dellu ci borom xam-xam da ngay dellu ci borom xam-xam fasalu ahla zikr da ngay dellu ci borom xam-xam mu daal di la koy mu daal di la koy leeral moo tax léeg-léeg nit ki mën naa am loo xam ne dafa lënt ci moom waaye leer na ci borom xam-xam yi mu dellu ci ñoom daal di koy leeral beneen bi mooy lépp lu lënt da nga koy moytu lépp lu lënt ci diine sori ko ba xam ba am ci lu leer naññ ba keroog ngay romb état bu lënt ba mu leer. parce que lu lënt li soo ci tàbbee amaana nga tàbb ci lu araam te doo ko yëg beneen bi da maa yuribuk ilaa maa laa yuribuk bàyyi lu lay sikki sàkkaloo ci lu leer nañ mbir mi da nga ciy dute bàyyi dut yi nga dem ba am lu leer nañ nga door ci ñëwaat ah bàyyi ba am lu leer nañ nga door ci ñëw loolu bokk na ci li nga xam ni danañ ko jàng ci li nga xam ne mooy xadis bi daan ci jàng it ne yàlla yàlla benn tool la am boo xam ne buggul ku ko ruur buggul ku ci dugg da koo protéger. mooy li mu araamal li mu araamal bu ko xët li mu araamal ci ay wax moytu ko li mu araamal ci ay pas-pas ki ngëm-ngëm moytu ko li mu araamal ci li nga xam ne mooy ay jëf moytu ko li mu araamal ci ay jikko ak ci ay comportement éviter ko beneen bi daan ci jànge it ne doomu aadama bi li gën ci yaramam li gën ci yaramam mooy xolam xol bi mën naa baax lool nit ki baax xol bi bon lool nit ki day bon nit ki aussi kon li ñu koy nattee mooy du du sa rafetaayat ba ngaa gis nit ku rafet ba pare bon xol rafet lool ko gis naa ne saa waaye moom mais xol bi moom xol bi allahul mustaan mën ngaa gis nit ku ñaaw lool gën ñëpp xol wala déet kon mbaax gi du ci rafetaay beeg ñaawaay bi de mbaax gi fan la dafa nekk loo xam ne lu intérieur la mooy xol bi ku la gën xol moo la gën ku la gën xol moo la gën bu yeboo nga dàq ko waaye moo la gën bu yeboo mu bañ a neex a xool waaye moo la gën fa yàlla moo la gën fa yàlla moo la gën ci diine kon nit ki ni nga yittewoo rafetal sa kanam gi nes-nesal toppatoo fomp fompal xol bi ba pare fompal xol bi xol bi defar ko fompal xol bi na xol bi baax ba pare bala ngaa baaxal sa kanam baaxalal xol bi xol bi nag li koy baaxal mooy jikko yi nga xam ni moom la islaam santaane nga def ko ci bokk li koy baaxal mooy ngëm yàlla ak yi nga xam ne sunu borom dafa bëgg mu ne ci xol ci mbaax nga daal di ko fay def lépp lu bon lu yàqu xol nga daal di ko fay dindi xol bi su baaxee nit ki day baax waaye xol bi su bonee nit ki dafay bon yaakaar naa ñu dem ñu arrêté foofu tey comme ak docteur Sakhir muy docteur Saïd du ñëw tey kon dañuy continuer ginnaaw bu ñu defee pause quelques minutes incha allah xaw ma ñaata minutes lay doon 15 minutes tayib kon dañuy jël pause 15 minutes ba mel ni affaire bi xaw naa tàng tey bu ñu ñëwaatee àggale incha allahu taala li des wallahu taala alam sallallahu wa sallam ala nabina muhammad